mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci yéen man la Mamadou Yatassay bokk ci ñuy daagaan baatu askan wi ngir jiite réewum Sénégal ëllëg mbokk Sénégal sama programme nag li ci gën a fës maa ngi ko jagleel ndawu Sénégal di leen woo tey ci ab waxtaan di leen ñaax di leen sant di leen gërëm parce que xawee Sénégal xawee yu am jom rek dafa fekk ni jéem nañ ci jéem ci jéem ci ba sonn pexe amul kon il faut que ñu changer changement bi nag lu yomb la may ñaan ñi nga xame ne ñoo yor banxaas yi abale xaalis ñu abal xale yi xaalis encadré leen accompagner leen financer seeni projet gunge leen si suñ ko defee jàpp naa ne pexe dina am ci ñu bëgg entreprendre beneen bi ci des mooy may ñaan ndaw ñi ñu bàyyi mbëkk mi parce que du pexe pour réussir Sénégal metti na mettiwul li ko tax a metti lenn kese la il faut que ñun ñi jiite ak ñu ñi nekk ci kanam ak ñun ñi nga xam ne ay modèle lañ walla ay exemple lañ ñu nangu di waxtaan ak xale yi di yedd di leen orienté ñi nga xam ne dañoo am entreprise di fay xale yi ñu fexe salaire xale yu baax parce que xale boo ci fay fukki junni ngi see faj soxlaam ba di ci faj soxla waajuram donc nañu xoolaat salaire u xale yi foog ñu am ay industrie parce que suñu amul industrie cherté de la vie du fi mës a jug en tant que capitaine d'industrie jàpp naa ne Sénégal su amoon assez d'industrie chômage bi dinañ ko absorber dina wàññeeku xale yi dinañ am fu ñu xëy soo gisee tey mënuñoo fexe ba population sénégalaise nekk ci jàmm ci lu jëm ci courant mooy woyofal bi gis ngeen ni mu chéree gis ngeen ni mu mettee may ñaan ñi jiite Sénégal ñu xoolaat lu mel noonu parce que du population bi moo war a fay erreur yi ngeen def parce que tey vraiment vraiment vraiment ku wax ak yàlla xam ne courant bi cher na c'est pas parce que diw mën na ko fay wala diw mën na ko fay que ñoom ñëpp ñoo ci yem parce que doole yemul mbokk yi ci sama programme indi naa ay pexe ngir saafara ci nu dund bi chéré tey maa ngi dégg problème bi am port autonome de Dakar may ñaan ñi ko jiite. ñu fexe waxtaan ak multinationaux yi ñoom ñooy indi conteneurs yi ci réew mi ñu fexe yombalal ko ay doomu Sénégal ñi nga xam ne ñoo koy génne pour les consommateurs parce que yéen doo bëgg a fay wala fanaanee bëgg a fay te doo mën a fay dina tax jafe-jafe yooyu du fi deñ am nañ ci saafara ci suñu programme beneen bi ci des mooy camions yi mënuñoo def lépp gasoil bi cher na essence bi cher na. pollution bi bari na te réew su bëggee développer day am chemin de fer il faut ñu rétablir les chemins de fer du Sénégal dafa jot beneen bi ci des ma tënku ko rek mu ngi concerné diaspora bi oto yi tey ñu ngi ci huit ans nañu fexe yombal ko boo tey egg ci fukki at ñu fexe ñoom immigré yi nekk bitim réew di liggéey di yónnee ay bagages fii ci réew mi ñu fexe a leen douane bi jàpp naa ne woowu su amee saafara dina commencé feeñ yéen ndaw Sénégal ma dellu di leen ñaaxaat ngeen jël exemple ci man mën na nekk réussir fii Sénégal mën na nekk parrainé leen ma bu ko defee ñu ànd am ndam booloo nekk benn ngir ëllëgu Sénégal